Mbaye Jacques Diop maa ngi lay nuyu. waaw Awa Ba maa lay fay. alors ngay administrateur au plateforme club euh, bu expert sportif yi euh, fi mu toll nii nag ñu gis euh, cérémonie d'ouverture bu Jeux olympiques deux mille vingt quatre nga xamante ne moo ngi amee ca Paris délégation sénégalaise bi fi mu toll nii am na fukki athlète ak benn goo xamante ne taxaw nañ rek waa représenter Sénégal ana nan nga jàngati seen performance yi nga xamante ne daanaka tàmbali na waaye tamit chance yi nga xamante ne war nañ ko mën a am. waaw balaa maa jàngat euh, performance yi euh, dañuy euh, dañuy d' abord dañuy d' abord saluer d' abord la qualification des onze athlètes sénégalais qui vont représenter en tout cas toute une nation pour les Jeux olympiques de Paris et eh bien vrai que doyul soo xoolee depuis pratiquement deux deux deux deux deux éditions muy toog yooyu yëpp suñu délégation yi dafa gën a wàññeeku parce que benn neuf la onze loolu moo lay wan sport bi war nañ ci gën a liggéeyaat war nañ ci gën a liggéeyaat hmm. ba tax na donc soo xoolee performance yi du am comme ni ñu ko yaakaaree pourquoi du am ni ñu ko yaakaaree soo xoolee les critères abord de de de de qualification par exemple ñenn ñi dañuy dugg ci quota continental ñenn ñi invitation la ñenn ñi par exemple euh, euh, parce que euh, qualifié nañu par exemple ay tournoi TKO comme par exemple ku mel ni Louis Philippe dafa qualifié minima ku mel ni par exemple. Euh, Ndeye Binta Diong dafa qualifié au tournoi Tekno comme Bokar Diop ñeneen ñi dañu dugg ci quota continental ñi euh, donc invitation loolu moo lay wane donc performance yi pourquoi performance yi dina jafe su ñu jëlee par exemple le porte drapeau bi nga xam ne moom mooy euh, Louis Philippe Louis Philippe dafa defoon le premier juillet deux mille vingt trois treize secondes dix huit centièmes. Hmm. te boobu ba léegi mënatul réédité loolu ay treize quarante huit lay def treize cinquante et quelque treize pense que. tey pour xalaat médaille pour le cent dix mètres et euh, aux Jeux olympiques il faut nga dugg dans les treize zéro wàcc ci suuf ay douze kay quelque loolu moo lay may médaille mais boo amee treize dix treize dix huit no am chance xëy na nag mën nga am chance dem demi final parce que finale bi da lay parce que parce que soo xoolee euh, épreuves yooyu ce sont les meilleurs mondiaux qui viennent waaw ñu jël euh, le cas de Sali Sarr Sali Sarr elle est championne d'Afrique mais étant championne d'Afrique elle est entrée dans le quota continental astafurlah elle est entrée dans le ranking parce que est quatorzième sur trente deux mais quatorzième boobu soo xoolee

mais moom mi ngi def 400 mètres tey mi ngi Paris mi ngi en France aujourd'hui di évoluer mais soo xoolee sur les 48 concurrents yi nga xam ne jël nañ leen pour le 400 mètres plat il est 45e donc amul benn chance moom day dem peut-être pour améliorer son propre record qui est de 45-03 euh, ki nga xam ne moom mooy Amadou Gackou 45-01 depuis 1968 à Mexico donc aux Jeux olympiques de Mexico maintenant am nañu ay athlètes yoo xam ni wàcc nañu sur le terrain. ku mel ni par exemple Ndeye Binta Diong wàcc na sur le terrain Ndeye Binta boo xoolee depuis deux dix ans elle côtoie le, haut niveau na ñu bëgg bañ ko mais a manqué de chance de concentration parce qu'elle aurait pu passer le premier tour devant l'Égyptienne malheureusement tel n'a pas été le cas par exemple Oumy Diop c'est ses premières Olympiades invité la donc on n'avait rien à faire elle a amélioré son record au 100 mètres nage papillon amélioré na amélioré Euh, ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Diaw Ibrahima Diaw c'est un bon tennisman qui vit entre la Norvège la Suède et la France bon moom il a été pris parmi les quatre du quota continental bu qualifié il est passé au premier tour mais je ne pense pas aujourd'hui parce que a aujourd'hui il a un, un très difficile très difficile aujourd'hui euh, s'il passe cela veut dire que ce sera une grosse performance pour Ibrahima Diaw s'il passe honnêtement ce sera une très grosse performance parce que depuis quelque temps il côtoie le haut niveau et aujourd'hui il fait partie des quatre meilleurs sur le plan africain et son volet pratiquement aussi des meilleurs en tennis en Afrique et même par exemple en France. alors dagguma la dagguma la mais dañu def trente six ans ba léegi Sénégal amatul médaille olympique pour yow loolu lan moo ko waral. non loolu du du du surprise du dara parce que médaille olympique doo doo toog nii rek da ngay préparer à la veille des élections à la veille des des jours mu ñëw loolu mënul am. Hmm. médaille olympique dañ koy préparer soo xoolee Japan def na quatre olympiades. Nigeria def na quatre vingt quatre-vingt-quatre Los quatre-vingt Moscou quatre dire que c'est tout un processus tu ne peux pas venir aujourd'hui pour dire que je vais gagner une médaille amul benn athlète buy ñëw naan tey parce que athlète buy ñëw naan tey da ngay gagner médaille def fekk nga nekk dans le top trois mondial te ñun suñu athlètes yi amul kenn ku ci nekk dans le top ten laa top je te dis top ten mondial hmm. donc ça veut dire que processus la jabaa bi muy ñëw 84 à Los Angeles il était ci wàllu woowu dawaa xam ne mën na décroché ji quatre vingt huit donc le président ndeysaan dem si yàlla Lamine Diack ak le ministre des sports Abdoulaye Makhtar Diop ak Keba Mbaye sont allés voir le président Abdou pour ne ko kii c'est une chance de médaille pour le Sénégal ñu may ko chance médaille muy entraîné à l'INSEP de Paris mais di dem aussi di dem souvent aux États-Unis di côtoyer ñoom Smith ñoom Edwin Moses preuve soo xoolee c'était le tiers gagnant à à à à Séoul en 1988 donc loolu da lay wan ne euh, loolu yëpp processus la donc mënoo ñëw tey ne da ngay gagné maintenant il va falloir que ñu ñu liggéey que ce soit au niveau du ministère que ce soit au niveau du comité national olympique sportif sénégalais les gens am vision am projet am ay objectifs aussi mu nekk des objectifs yoo xam ce seront des objectifs intermédiaires et évolutifs en fonction même au moins des objectifs globaux ou généraux qui ont été fixés mais su fekkee ni loolu amul ce sera toujours du pilotage à vue te pilotage à vue boobu chaque fois dañuy dem on revient et puis si on revient on ne fait pas une évaluation aujourd'hui on évalue par exemple normalement aujourd'hui la direction du sport de haut niveau ak la direction des activités physiques sportives au niveau du ministère des sports ñoo war a nekk incubateur direction technique nationale yi ñuy xam les de performance des athlètes ñuy xam aujourd'hui quels sont les athlètes de haut niveau parce que être international et avoir peut-être être dans le ranking des quarante cinq cinquantième je suis pas un athlète de haut niveau Euh, du du comité national xamee ñuy am ay fiches de performance ñu leen di évaluer ni ñuy évaluer sportif yi aussi ñu koy évaluer les techniciens di ko évaluer les dirigeants et si on les évalue comme ça ñu xam ne am nañu benn plan de préparation am nañu plan boo xam ne plan de préparation plan de planification ak benn projet boo xam ne pour deux mille vingt par exemple aujourd'hui le groupe de performance de pour les Jeux olympiques de ñu mettre à leur disposition des moyens ñoom ñu defal ñu une fiche technique ne par exemple tant d'années c'est c'est c'est tant chaque année c'est combien on va dépenser pour eux moi je pense que état bi mën na ko dégager bu ñu amee je pense que suñ ci amee ay places de finalistes je suis persuadé qu'on peut au avoir des médailles et c'est comme ça qu'on travaille une médaille une médaille on la travaille pas à une semaine nga ne joxe nga onze millions joxe nga douze askan bi tey kenn mënu leen nax des sports parce que nous aussi nous nous faisons office de sentinelle pour dire que si sa va pas on dit basta arrêtez si ça va on applaudit des deux mains pour dire que oui ça va très bien c'est comme ça noonu la ñu war a doxalee sport yi parce que sport bi ñëpp ko bokk mhm. ñëpp a ko moom na ci nit ñi di def nekkee ay chercheur noonu la nit ñi di gëstoo nen na ci opinion bi ak population bi di di di gëstoo xam parce que ñoom ñooñu gën a xam sport fuuf dix mille donc ñun ay ay ay si si c'est vrai que ñun dañ ciy dañ ciy gëstu dañ ciy liggéey mais am na ñoo xam ne nekkuñu si mais ñooñu ci ëpp xam-xam fuuf donc ñu associé ñëpp sport ñu xool lan mooy tax depuis 1988 on n'arrive pas à avoir de médaille avoir de médaille na da koy togg di ko liggéey buy ñëw Mhm. alors alors ndax ndax ndax ndax euh, ndax Paris euh, tey jii dafa détrôner euh, Londres ci titre ouverture aux Jeux olympiques ba mu defee Paris risqué bi nga xamante ne jëm na ci organiser cérémonie bu njëkk bi defee ko nag foo xamante ne wuute na ak stade gi ñu koy faral di def ñu gis sax ku ci mel ni de Debbouze ñëw na Zinedine Zidane tamit bokkoon na ci cérémonie boobu li mu am show bu mag ndax gis nañ prestation kii di Céline Dion ba ci Aya Nakamura ak yeneen artistes. artiste mu nekk nag show boo xam te ne daanaka euh, amoon na solo loolu. waaw sur le plan diplomatique. Mm-hmm. le plan du réellement sur le plan de la géopolitique ou bien de la géostratégie Paris a gagné le pari en tout cas de de l'organisation pour le moment. tout à fait euh, pour l'ouverture officielle. parce que mm-hmm. boo xoolee aussi les gens sont en train au moins de critiquer partout à tous les niveaux parce que l'accueil pose problème l'hébergement pose problème on a vu même gis nañ ay athlètes yoo xam ne. ñu ngi dëkk ba Corée dañuy dem génn foofu dem wuti am na ay athlètes yoo xam ni euh, Suède lañu dëkk dem jëndi ay matelas parce que nee nañu ay matelas carton la buñ ci tëddee et yooyu saa ne mérite pas pour des performances hmm. ba tax na donc je pense que aujourd'hui pour ñu ne Paris détrôné na euh, tey euh, Londres def Londres dafay ya dafay dafay il faut ñu xaar GIE jeex ñu xam d'abord lan mooy impact GIE ñu xam aussi d'abord lan mooy lan mooy lan mooy impact GIE mais lan mooy seen Euh, héritage parce que héritage bi ci la ñu mën a xamee ndax pari détourné wala déet moo tax gis nga euh, sport dafa doon loo xam ni reconnecté ñu xam le parce que soo nekkee veille de compétition waroo dem sax défilé mais on a vu des athlètes partir au défilé et défilé boo xam ne dafay durer ay deux heures trois heures de temps et le lendemain tu as compétition hmm. ça pose un problème de concentration ça pose un problème de récupération et l'autre aspect aussi loolu daf lay par exemple tey aussi yaa ngi wax Paris ndax détrôné mais ñun ñun ñoo war a liggéey pour pouvoir détrôner l'Argentine pour les Jeux parce que dañu amoon ay Jeux yoo xam ni deux mille vingt deux la ñu reporté ko ba deux mille vingt six ça veut dire que huit ans organisé wuñu Jeux maintenant il faudrait que ñu lancer un appel au président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que l'organisation des Jeux là dafa war a nekk un projet de loi ñu porté ko au niveau du ministère des sports mu am exposé des motifs nit ñi dem comprendre nga le ministre dem en conseil des ministres yóbbu ko à l'assemblée nationale parce que affaire bi du affaire u konos du affaire u ministère des mais affaire u Sénégal la affaire u Afrique la pour ñu pouvoir réussir mais su fekkee ne ay deux trois personnes quatre ñoom ñooy tëdd dugg seen bureau di réfléchir non loolu du mën a nekk il faudrait moi en tout cas moi je prône pour qu'il y que, cette organisation fasse l'objet en tout ne lii soxal nañu ci ñu xool le compétence parce que am na ay nit ñoo xam ne dañ leen y a des gens on ne peut pas les écarter des jeunes de l'organisation des jeunes je fais allusion par exemple à Thierno Diack je fais allusion par exemple à docteur Ahmed Dieng je fais allusion à Jamil Faye El Hadj Amadou Diaba ay ay a beaucoup de sommités sportives yoo xam war nañ leen mën a dugal parce que am nañu expérience am nañu ñu boole leen ci y en a beaucoup que je peux citer yoo xam ne par exemple donc je pense que tey ñun dañuy dem en deux mille vingt six pour l'organisation justement pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar deux mille vingt six oui mm-hmm. préparer parce que bu bu ki bu ñu jëlee fële ñun la ñuy jox flamme bi te bu ñu jëlee flamme bi ñëw fii di tasaane wala bëgg trois quatre personnes ou bien un groupuscule d'amis ou de ou bien ou bien de copains pour loolu bu sotti loolu bu sotti Jeux olympiques mm-hmm. les Jeux olympiques c'est une affaire mondiale donc ça doit con ça doit ça doit considérer aujourd'hui toutes les concessions dynamiques toutes les compétences nga boole leen je pense que loolu mooy tax ñuy réussir aujourd'hui le défi de la participation et de l'organisation vous avez vu que en France aujourd'hui ils ont associé toutes les concessions dynamiques donc moo tax tey ñoom ñu réussir d'abord seen organisation ouverture bi mais attendons pour tirer le bilan en attendant il faudrait attendre la fin des Jeux pour tirer en tout cas le bilan de de globale de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Très bien Mbaye Jacques Diop euh, jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay administrateur plateforme club euh, expert sportif euh, yi fi nekk jamono ji ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf